ku ne xam ku ne xam ne Seydina Mohamed gën ñëpp. sallallahu su baax soo di aawam. aawam mm-hmm. yu tedd jooja. Eh. doon commerçante. Mm-hmm. doon grossiste. daan dem réew ak réew di sar sar si ay conteneur di ñëw. Mm-hmm. kooku moo daan kooku moo tere yonent yàlla Mohamed. waaye nag lu mu ko tere tere tere dépense bi mu ko war a jox yonent yàlla Mohamed. téeméer téeméer yonent bi. Uh-huh. mooy dépense kër gi. dëgg la doon nga Xadija am na milliard. mais mujj xadija xadija xadija naan ko bàyyil ma yor si lépp mun ko déedéet du mopp yoon. Mm-hmm. waaye léeg-léeg nga ñëw léeg-léeg am ki ñëw ci ma oustaz ma soxna si am barke ma ne ko a a am. soxna di ko dimbali moom moo di dimbali. moo xew léegi de. léegi de bu ñu bu ñu ne oustaz. Ah. moo lay toggal lépp da ngay ñëw rek consommé. Mm-hmm. man ko yaa ñàkk déedéet xam nga lan lañ lay a wax. Euh, tu fais quoi dans la vie. waa looy liggéey. bu ko problème problème bi. te eh, gis nga nee nañ ku ku nangu te jaamu yàlla <laughs> nit ku ñàkk jom góor gu mën a fen lu mu ñaan yàlla du ko nangu mm-hmm. mooy yàcc yàccaar moo tax ñu ne yaddul ulya xayr mi yadd suuf la mm-hmm. bi loxo bi féete kaw gën loxo bi seen suuf yow boo taxoon naan jigéen ji am na teraanga mais attends jigéen ji dafa jàngi woon ñafe ko ba am ko mm-hmm. dëgg la te ñaar am na ngeen baal ma àq ko tey waaw bala ñoom bu nit faatoo bala ñu ko miraas nañ gëstu ay dossier bëri na koo xam ne am na kër fekk soxna si daf cee participer. jënd jënd birig def lépp mais heureusement sutura kenn waxu ko. ah oustaz jëkkër ji gaañu ñu commencé mirage tëb ko moom. ah ah déedéet oustaz tegal foofu sa loxo. yaa Seydi. sarul ma kaas si riba kaa ñu waxtaan. foofu dafa baax wa sarul ma ali ko akalil maali yetim eh. yonti yàlla Muhammad wax. yaa Seydi. mirage kenn yow booy tabax kër. Mhm. ngeen solidarité. xaaral xaaral ma ñëw rek xaaral booy tabax kër. Mhm. sa soxna def nga def. bindal maanaam ngeen bokkoo. tabax kër gi. bindal. bu miiraas jotee. bindal bindal. islam tubaab ne sa bindal. balaa ñoo séddale say njaboot. na nga taxaw ne man maa moom la woon. ñu ngi nga ne an papier yaa ngi nii. kenkaare sàng moom a jaan ciment ak PFR bâtiment moom it mu signé xamul ko waral. boo mhm. dégg ñoon takk suuf attention takk suuf araamul de. Mhm. mais baaxut ñun lu tax mu nekk ñett la cay meññ bu bu ñëwee ci dëj bu waa ji kenn du ko mën a identifier. Mhm. parce que kii kii takk suuf moom du laaj naan ndax suuf la si yoon day laaj ndax lekk ko alal jaaw ndax ëmboo ci jigéen. ku góor ki ndax ëppaloo juróom ñeenti jabar yoon moom loo loolu ko sant. yéen yéen ñaar ji góor ñi yéen a xool seen diggante seen borom tabaaraka taala ak héritage bi nga fi bi ngeen fi bàyyi. bëri na ñoo xam ne tey ñi ngi seen baay gaañu na leen benn seen jëkkër gaañu na ñuy ménage tëpp jabar ja fekk jabar ja lépp sax moo ko jox benn bu jëndu terrain mbokk dañ ci participer tabax mhm. kon pour léegi ngeen mën a bañ am na day leen bind loo ko bëgg bëgg bindal ndax lan ak garde facture waaw ndax lan mbokk yi mbokk ko góor ki mën naa def ay taxaw naan su ma jëkk fekkate dara amu ko ci ndaw si da ko sagal loolu bëgg a tas Sénégal beneen bind leen ndax bu ëllëgee gën a ah ay yéen lii loo tax ñu ne ko góor amul droit maye kër fekk am nay doom ci soxna te dara jotu ko amul droit mais am nga ne alal bu bëri bu bëri la mën nga ko xaaj ne diw mii maa may maa may may li nga identifier ko. Mm-hmm. la des na nga ne leen lii ñu des nag ci kër ak i tool ak i naan téye nañ ko bu ma dee ñu meras ñu meras ko mais doo lépp mais da nga may am bu ba ëppee mën ngaa jël ne diw may nangam. Mm-hmm. Abdourahman ibnu Awf ashaaba rasulillahi lan. Mm-hmm. multimilliardaire la woon bi maanaa mm. mais bi mu demee ba xam ne léegi rasulullah génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam mhm. dafa woo ko Bilal yow yaay yow la yent bi doon dénk lu mel nii ah mu bi ma naan nafaqatu Bilal yi mhm. caisse sociale islam Bilal moo ko doon garde binance financier la de ah uti na gars yi di sàcc xaalis yi dëkk bi uti nañ Bilal te Bilal yent bi la ko ko yow yaa xam ñii ñëw indi seen problème social léegi li fi ñëw ci waram àll ne ko indi ko dajale fii yaa leen koy jox Mm-hmm. mais confiance la. waaw Abdourahmane dafa ñëw ne gars yi tànnal ma saabay rasulaay yu mag yëpp. Mm-hmm. nga bind ma seen tur. Mm-hmm. boobu Bilaal xamul xew de mu bind ñëpp ne ko diw diw diw diw ci tegu ba mu jeex mu ne ko sama alal jëm ca banque ba toll na ca deux milliards mais un milliard bi ñoom laa koy séddale ndax bu ëllëgee duñ jaaxle. ndax ka la daan jàppale nekkatu fi muy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam Abubakar nekkatu fi yaa fi nekk te wóolu naa la. xoolal lii waaye nag milliard bii des nag. ci lay dund ak sama njaboot bu ma faatoo ñu meeraas ko. kon nit du may li nga am doo ko may lépp ndax bu ëllëgee sa noon man laare waaye la nga am mu bëri nag mën nga ci dimbal ko ñàkk ki. kon abo runi bi du ofaa i fa innama tunziruuna aw tuzriquuna yonent bi nee na fexe leen ngi dimbali ñu woy lompañ yi lompañ mooy ki te góor mënta ñaan. nee soo ko génnee ko def yàlla gis na ko xoolal xoolal Abdourahman mi ma tudd nii. Mhm. bi su jëlee woon mhm. yéen itam dem mag Madina mu topp ko bitig yi bëri xamul nu muy def. mu mm-hmm. ne naan te dafa bàyyi yëru Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa demee ñëw Madina Madina yéen itam ko waa yow Abdourahman. Mm-hmm. sa taranga bitig yi ma ku mu mm-hmm. la nga amoon màkk yàlla na yàlla multiplier nekk multimilliardaire mais xam kuy dugg àjjana la mais ku fa yéex dugg la ndax lan audit ba audit ba yàgg. Mhm. waaw kon ñi am alerte baaxu fu ñu jëm. salaamaaleykum wa rahmatulah. Ah, bi am na solo lool su ma sañoon dañu koy nekk fii di ko continuer waaw <laughs> ah, tey fi nga góor ñi. mais alxamis la. encaissé leen tey encaissé leen ba suba xool. de <laughs> alxamis la mais jëntee li ci des. nag maa ngi waxtaan ci feebar yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam feebar bu riche la. bari bëri lu ci am nag. waaye nag oustaz. xam nga Seydina Mohamed moom sangu-sang yi boo boo booy wax ci moom mm-hmm. daanaka da ngay wax aussi ci ci ci góor ñi ni ñu war a yoree soxna yi ah, ah maanaam maanaam mooy maître mag bi waaw maanaam ci gàttal daal góor ñi ku lay lancé ay regard meurtrier yoo xam ne day nabu waaw bu lay regard loon du baax ah, ci man nii rek laay def sànq ba léegi ku lay a wax naan lay doo sa xam nga mm-hmm. ah, yaa wax man damay wax ba ci yàgg jot message ñu ma yow mënoo yem place célibataire xam nga da leen yem yéen tamit yaa ngi ne na nga wax tamit ci marié yi la xaw ma ak ñi naan duñ takk cas social. mais xam xam nga ki gën a respecté jigéen Seydou Mohamed. cas social sallallahu alayhi wa sallam. ak neexum plateau bi yàgg. Seydou si soxawa. oustaz loolu yëpp suba nga ciy ñëw. Hmm. góor yi moom xanaa. tey xoolal tey da ngay jël paar bi ñu ñam tëdd ak moom. yéen doog moom tëdd ak moom ñu yeewu suba. nga mayaat leen ñu tëddaat ak moom yow ñi may xool ñëpp nga xam ne seen bëti instant yi. ci tëddu àjjuma bee gën a métti ndax da boole samedi dimanche altine. léegi nag xoolal ma wala nga ma njàmbas wala ngaa dem. Mm-hmm. ma njàmbas bala ngaa dem. waaw ayca. benn jigéen ci Madina ay agresseur jàpp nañ ko. Mm-hmm. noonu ñu ak ay ennemi nañu. Mm-hmm. ndax xare Badar bi mu passé képp ku du julli rek mer nga islam mer nga islam. ndaw si ñëw ci ci tëgg bi di di defar di defarul lamam ci tëgg bi ci Qaynuwaa Marcel bu ab siiw la fa la jë ëpp ay artisan fa nekk. tëgg bi nag nekk bi muy ñëw. voilà it wax ji agsi na mël fa bi mu mël fa bi mu yor soloon mël bi da doon dafay gudd ba muy direeku am yahut bu gis ko ne ko eh xool ndaw see musulman la xool cetal mël fa bi di muy diree ko jëlal brique nga takk ko ci ginnaaw ndax bu jógee day daanu effectivement mais bi mu ñëwee ba kii mën a mu pis tëgg bi ne ko noppil jël brique bi takk ko ndaw si waxtaan moom bay dem rek rek ndeysaan mbël fi mu teq teq ko mu daanu ñu gis ñu laqari awraam awraam awraam la digul awraam mu indi coow lu rëy am jullit yu fa rom gis ndaw si ji jigéen jigéen ñu toroxal ni ñu xeex ba rey tëgg bi parce que complice la. Mhm. moo tax complice bon xeex am ca marché ba ñu ne Rasulullah yëngal ay am na. Mhm. ab jigéen lañ jàpp ca Madina ca xëy na ah summi awraam ba ñëpp di ko gis Rasulullah dafa daanu. Mhm. daal di ne tey ci ngoon ngoon gi kenn du fanaan ci dëkk bi. kenn du fanaan dëkk bi ndax lan pourquoi jigéen ñu koy toroxal tey nit di des ci adduna bi. kon nag utal nga ak ñi ñi jàpp jigéen di leen rey. wallaay. ak ñi leen agressé. wallaay kon ñun jullit ñi fekk ñu to fekk doon ñu yonent bi ci xaw defaan suñu jigéen. Mhm. matuñu. dëgg la. les imams chaque jour ñun topp ci rajo naan wet tet tet te bis bu ne ñu agressé jigéen doo dikk ku ci xutba. dëgg la du benn imam buy marche. Mhm. parce que gis nga li yonent bi defoon la nit ñi bàyyi bu yàgg te nag. ku la gën a teral jigéen la gën tedd àdduna ak àllaxira maa akrama nisa illa bi karimin kon dama bëgg ñun ñu ñu ñu taxaw yeneen taxawaay bees mhm. ku dóorati jigéen nañu yóbbu ci ah, yóbbu àll waaye nag ku jigéen góor gi ku jigéen tamit na xool tamit lu tax bu mu tooñ de bu mu tooñ bu mu tooñ laa darur wala dirara mhm. bi maanaa kon ñun suñu jigéen la yàlla lim indi àdduna bépp jigéen la ko dénk kon jigéen moom bu mu teddadi waaye nag góor na am respect ci mhm. am na solo ñoo respect daal dafa war a réciproque maa ngi dédicacé waale Nabou Cor agresseur ya ma agressé woon ba tey <laughs> dédicacé naa leen yal na yàlla jubbanti leen ci barke yonent bi yéen ñi ma agressé woon laa wax mami